asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina chaîne chaîne muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen baal àq di leen baal àq di leen ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daari ne di ko sàkku ci yéen mbokk yi démb dañu nekkoon di indi ay junj ci gént bunt ñu am nag ñu ci war a dolliwaat ndax comme niñ leen ko wax woon démb rek gént buntu dafa yaatu bari ay tegtal ku gént ñu ubbil ko wunt yu bari wolof mooy wax ay wunt bu yu bari bu dee benn mu kon ku gént ñu ubbil ko ay wuntu ñaara dana tekki ak ubbeeku dana tekki ak ubbeeku ku génte di fëgg bunt bu ñu ko ubbilul wala muy ubbi bunt bunt bu taxa ubbeeku dana tekki mbir mu des wala aajo joo xam ne am na lu ko gàllankoor ba ba mu desee sotti moo xam kuy ñaan aajo la moo gént gis loolu euh, ñaare yu mel noonu ame da ngay saraxe mel ni tuur deret xar wala béy wala yu mel noonu bu fekkoon ne xal wala nga tàmbaliwaat bu fekkoon ne riyaada la nga tàmbaliwaat incha allah dana la lu gën a leer loolu dana la wan lu ko ku gént génn ci buntu bu xat jàll ca beneen bunt bu ko gën a yaatu loolu ñaari dana tekk génn ci jafe-jafe bu fekkoon ba safaan ba contraire beneen nga gisit maanaa génn ci bunt bu yaatu dugg ci bunt bu xat loolu gàllankoor na ak ay jafe-jafe bu fekkoon looy bëgg a la wala looy bëgg a tàmbali loolu ba yeboo nga teej ku gént di tëj bunt boo xam ne day taxa tëju loolu lu mel ni gàllankoor dana koy def ku gént ñuy gas buntu këram kooku ay fexe yuñ koy fexel la bu buntu néegam mën na nekk ay pexe ci borom këram wala ay pexe yuñ koy fexe ci soxnaam ku gént ñu tëj ko ci néeg bu amul bunt loolu dana tekki coono bu metti dana tekki jaxle gu tar dana tekkit ak tëju ñaar yu mel noonu day faral di nit di dal nit nga def gàllaaj ca kër gént am lu bëgg a dugg ci buntu kër gi waaye mel na ni mënta dugg benn am na lu ko téye way laa daal mënta dugg loolu nag ñaare kër gu am kaaraange wala gàllaaj gu baax wala taxsin lu mel noonu dana koy def ndax kër ak dëkk ak soxna mag ñi dañ ko daa sanc sanc nag mooy fas yéene dëkk yaag sa njaboot ci jàmm moo tax mag ñi daa wax ne mooy sanc ab dëkk danga fa def lu mat sëfu gëléem ci ñaam ci gàllaaj booy sanc ci it nanga ko def lu mat suufu mbaam ci gàlla ci ñaan bu dee soxna it nga bëgg ko nga bëgg a yàgg ak moom moom it doo ko yore loxoy kese ndax loo dugg ay loxo ak loxoy kese mën nga caa génn ak loxoy kese moo tax mag ñi lañ daan def rek dañ ci daa boole ñaan ba noppi daan ko càmbar bu baax a baax moo tax ñaare seeni gàllankoor ak seeni jafe-jafe néewoon lool jafe-jafe nag kenn mënu ko ñàkk ci àddina waaye mën naa woyof wala boog bu ñëwee rek daal di jàll jàll daal di eh, jàll dem mel na woon tax seeni koy man nag am ay gàllaaji ñaan kon mbokk yi loolu lañ leen dolliwaatoon ci gént ay wunt bu ko defee tegtal yi ñu leen jot a jox dana la ci yoo déggut ndax gént moom dégg la rek du caaga ne lépp lañ la tegal nga koo xam waaye li ngay euh, tegtal yi ngay yi tege sa loxo moo lay dimbali ci nga mën a dégg yi nga xam ne euh, gisoo ko wala waxuñu la ko comme ñu ngi leen di fàttali ngeen way di abonné ci chaîne ba ak di tasaare vidéo yi ndax bokk na ci li koy yëkkati wasalaamaaleykum